madina cheikhu tijaani makaanu leer bi dalal ak di teral mboolem yonennu awliyaa yi mawlaaya cheikh ne méngoog ardul qudsiyu madina cheikhu tijaani makaanu ak di teral mboolem yoneen yeeg awliyaa yee mawlaaya cheikh ni méngoo bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa xabibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ixsanin ila yawmi din wa radiyallahu an barzakhil maxtuum taajul aarifiina imaamul awliyaai mawlaana cheikh ahmad ibnu mouhamad atijaani chérif radiyallahu taala anhu suñu MCTV ñu ngi leen di nuyu ci baatu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di leen ziyaara di am contentement ak mbégte bu rëy àndaat ak yéen ñu ngi fii ci médinatu cheikhu tijaani chérif ci context bi nga xam ne moom mooy ziara annuelle ren nekk deuxième édition bi tombeek le vingt 27 ak le 28 janvier 2024 macha allah programme bi nag mi ngi nekk ci ñaari fan tey samedi le 27 euh, incha allah ginnaaw bi nga xamee ne tatagal nañ dalal daayira yi ñu jugee ci gox yi fasantikoo ci biir réew ak ci biti réew euh, bu ñu jullee tàkkusaan ba def suñu zikr lazim ba pare dina am seen pojom bu ñuy def seen podium bi nag ñu ngi koy def ci temu naka la nit ki war a comporté woo wala boog yan jikko la war a la taalibe bi war a mën a am pour mën a ànd ak missionnaire universel kon euh, loolu moom moo nekk seen podium bi euh, bu ko defee deuxième jour bi incha allah euh, ki nga xam ne moom moo di Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh dina recevoir daayira yi bu ñu paree ci loolu dina am benn grand interview boo xam ne Euh, sang bu tedd bi dina ko def ak le grand journaliste di Cheikh Adama Ndione euh, léegi nag mu des euh, li nga xam ne moom mooy conférence bi nga xam ne Mawlaya Seydi Mouhamed El Cheikh dina ko def ginnaaw bi ñu julee gee ba pare thème bi nekk la wasifa dans l'évolution spirituelle kon programme bi mi ngi noonu bu ko defee ñi ngi fii nekk ci Medinatu Cheikhu Tidiane Chérif Medina Cheikhu Tidiane Chérif nag waa daayiratul iman yëpp ñoom ñoo fi daje comme ni ngeen ko xamee daayiratul imaan kii di Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh moom moo ko moom moo ko sos ci ndigalu sëriñam di Mawlaana Cheikhu Tidiane Chérif loolu mi ngi tombeloo nag dimanche 10 octobre 2004 booba ñi ngi nekk juróom-ñaari nit léegi boo xoolee ay junniy junniy doomu aadama ñi ngi ñi ngi adhéré ci daayira boobu ñuy wooyee dayratul imaan euh, sang bu tedd bi am ay représentant ci biir réew mi ci région yi fi nekk mu am fi ay xulafa waaye yemul foofu ci sous région bi lu mel ni ki Mali lu mel ni ki Maroc lu mel ni ki Côte d'Ivoire fu nekk am na fa représentant waaye ba tey yemul foofu boo demee Europe France Amérique Canada foofu yëpp Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh am na fa ay am na fa ay taalibe yoo xamante ni ci ay ci ay waawam la ñuy wéy waaye bu ñu seetloo malgré que ne daayiratul iman bëri na ñi nga xam ne adhéré nañ fa kasketu euh, Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh yemul ci nekk sëriñu tarixa rek nekk sëriñu daayira rek au moins euh, graatam wala boog li ko yàlla may romb na foofu ñi ngi nekk ak yéen fii ci Médinatu Cheikhu Tidiane Chérif euh, ma profito daal di dalal sama invité bu tedd bi borom xam-xam bu mag bi di Cheikh Gori Mbodj Cheikh Gori ñi ngi lay nuyu di la ziyaara macha allah ñi ngi fii ci Médinatu Cheikhu Tidiane Chérif tey lan nga ñu mën a wax ci bërëb bu tedd bi nga xam ne fi la ñu nekk macha allah. bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum soxna Sow Diatta maa ngi lay nuyu di nuyu euh, téléspectateur yu Medina Cheikh TV yëpp di leen ziara di kontaan lool si teew si sa plateau bi si bërëb bu tedd bi nga xam ne mooy moo euh, euh, Medina Cheikhu Tidiane Chérif nga xam ne comme ni ñu ko waxee mooy bërëbu Seydi Mouhamed El Cheikh léegi nag soo buggee wax maanaam si Eh, sellate bërëb da nga koy delloo maanaam si ku fa nekk ndax dañoo suñu delloo si histoire dañuy gis ne lieu eh, saint yi ñuy tudd si l'islam bi li ko waral mooy daa am ñu fa jaar fekkee dañoo wax màkka dangay gis ne màkka lu fa nekk mooy kaaba ga ëlbatiku suñu yonente bu tedd bi bi Seydina Muhammad ñëw juddoo fa maa ngi kon sellite màkka day dellu si diggante kaaba gi ak yonent yu fa jaar yawate na nag ku gën si yonent yi nga xam ne muy yonent yonent bi Seydi Ahmed suñ jógee foofu dinañ tudd euh, fi nga xam ne foofu la yonent bi euh, euh, gàddaay mu nekk Médine Médine tamit selliteem lu ko ko jox mooy yonent bi lu mu ñëw dëkk fa dund fa ba pare génn fa àdduna ñu denc ko moo tax ñuy wax foofu tamit lieu saint de l'islam la suñ delloo si loolu tam troisième lieu saint de l'islam mooy fi nga xam ne mooy masjidil aqsa nga xam ne mooy Jérusalem foofu tamit selliteem lu ko waral da gis ne day dellu si maanaam yonent yi nga xam ne ñoo fa jaar ndax wax nañ majorité yonent yi yëpp dañ faa jaar soo delloo tamit si tarixa bu ñu bokk muy tarixa Mawlana Cheikh Ahmada su ñu nee Fès maanaam li fa nekk tey bu tax ñu tuddee ko Fès ba tax ñu ñu naan Fès ñëpp xam ko si àdduna bi maanaam Mawlana Cheikh lu mu fa wàcc moo tax te juddoowul foofu moom mu ngi julle juddee Algérie Medina Cheikh bii ñu nekk tamit moo mooy lu xew feereen Medina Cheikh bu kan la bërëbu imaam al mahdi al muntazar su ñu nee bërëbul imaam al mahdi al muntazar nag imaam al mahdi ko ko xam personnalité bu mu doom si lislaam ak nu ko yonent bi jàngalee nga xam ne sax même ñi nga xam ne ay ay sunnit lañu maanaam dañuy wax ne ñoom alxuraan lañ gëm ak sunna ñoom dañoo gëm ne sax kooku mooy trois deuxième personne ginnaaw yonent bi maanaam suñ nee yonent bi rek moom lañ si war a teg parce que moom kese la yonent bi junj wax si moom loo xam ne ko wax ko si benn milieu Mawlana Cheikh nag xamal leen ne comme Mawlana Cheikh dafa nekk koo xam ne moom dafa dafa làqu si baatin yonent bi tudd ko directement mu xamal leen ne kooku su ñëwee sama taalibe lay nekk kon moom bërëb bu mu sos mu nekk Medina Cheikh bërëb boobu tam day nekk lieu saint maanaam fu sell lay tax sellité am fa lu koy waral mooy ki nga xam ne moom moo fa nekk waaye yemul si loolu parce que Medina Cheikh tamit dafa am histoire wax nga date bi nga xam ne moom lañ ko créé te loolu si shahada la mais suñu delloo dëgg-dëgg lu gën a sori loolu Medina Cheikh si bokk na si dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo njëkk feeñ si àdduna parce que secret yi nga xam ne moo fi làqatu kenn xamul nu mu lu mu toll loolu nag am na loo xam ne suñ la ko waxee nii daa am leneen loo xam ne foog nga ñëw fi pour gisal ko sa bopp maanaam soo fi ñëwee pour xam ne lieu saint la di nga xam environnement bi lu ñu siy dund di nga xam ne euh, Medina Cheikh lu fi xaw mooy jaamu yàlla topp fu tarixa Mawlana Cheikh wasifa subaan ngoon julli du du du du raw ku fi nekk programme bi yëpp si lislaam lay dellu doo fi dégg dara loo xam ne day dellu si aada wala dara loo xam ne si ay caaxaan lay dellu te loolu nag donte milieu bi si xaqiqa nekkutoon milieu sain loolu su fa saxee rat foofu dina nekk milieu macha allah macha allah jërëjëf Cheikh Gory ci kàddu yi am solo yooyu nga xam ne indil nga ñu ko muy Medinatu Cheikhu Tidiane xanaa di fàttali rek ne Medinatu Cheikhu Tidiane moom yonent bi sallallahu alayhi Seydi Ahmad moom moo ko annoncé woon moom moo waxoon ne imaamal dafay dafay sanc dëkkam te dëkk ba ndox da koy wër kon yooyu yëpp ay tegtal la yoo xam ne eh, eh, yonent bi say salaam defoon na ko ci barab bu tedd bi ñi fàttali ne Medinatu Cheikhu Tidiane Chérif kii di sang bu tedd bi di Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh mi ngi ko sanc dimanche le 27 septembre 2009 lundi le 28 septembre 2009 ci lañ fi njëkk a lal wasifa ci barabu bu tedd bi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 ziyaara lañ wax tey bu ñuy dégg baatu ziyaara lan nga ñu mën a indil ci ziyaara ak njëriñ yi nga xamante ni ziyaara am na ko macha allah. Ah, macha allah soxna Sow Diatta nga laaj lu am solo loo xam ne eh, ñu bëri dañ koy wax tey foo dem ñu ngi naan dañuy organiser ziyaara dañuy dem ziyaara seen sëriñ te amaana xaqiqa ziyaara sax xamuñu exactement lan la parce que suñu nee ziyaara la day dellu si loo xam ne am na si lislaam loo xam ne jullit buy ziyaara bokk jullitam. mooy daje ngeen ngeen ziarante nga xam ne loolu lu baax la mm. yonent bi sax wax na ay julli suñu defee loolu seen bàkkaar yëpp si barke loolu seen bàkkaar yàlla danañ koy jégal mais suñu nee ziara si cadre bi nga xam ne sufiyanke yi suñ ñoo ko créé parce nee ziara dëgg-dëgg sufiyanke yi ñoom ñoo ñoom ñoo ko créé pour lan pour milieu boo xam ne la dañ siy daje seen sëriñ maanaam ki nga xam ne ñoom mooy seen wasila seen wasila bi nga xam ne nag yàlla moo leen ko waxoon si alxuraan moo leen waxoon ne na ngeen ut wasila boo xam ne moom moo leen moom moo leen di jotale si yàlla donte am na ñu bëri ñoo xam ne interprétation joxe nañ ko ay interprétation mais lu ñu gëm ñun mooy ñun dañoo gëm ne ay sufiyanke lañ waaye xam nañ ne mënuñoo demal suñu bopp si yàlla waaw nekkul jàng téere nekkul am xam-xam nekkul mokkal ay ay hadis mooy tax nga àgg si yàlla mooy tax nga xam yoon yoo yoon bu lay yóbbu si yàlla yoon bu lay yóbbu si yàlla maître mystique boo xam ne mat na ko moom moo la mun a teg si yoon bi ba nga àgg fa léegi nag comme ñun loolu la ñu gëm moo tax ñun dañuy topp si ginnaaw koo xam ne leer nañ ne kii yàlla moo ko fi teg maanaam mu nekk koo xam ne ku ko topp dina la yóbbu si yàlla ñoom na si cadre boobu lañ demee ba gis ne kon day day soxla léeg mhm. comme genre yooyu ku ci am sëriñ du du ja du yomb chaque fois ngay nekkat moom ndax bërëb yi day fas fasantikoo comme ni ñu ko waxee mm. ñu ngi Medina Cheikh ñi ñu ngi jóge dakaar ñi ñu ngi jóge ba bitim réew ñëw te amaana si ziar bi amutoon loolu mun naa bañ a am mm. macha allah kon ñu gis ne ziar moom dafa nekk loo xam ne dafa am solo lool si si si si si ñi nga xam ne mooy taalibe yi nga xam ne dañoo am lu ñuy sàkku si seen borom macha allah ah allah kon ñu dalal ki nga xam ne moom moo di suñu soppee eh, Cheikh Ibrahima Taw mu ñëw bàkkal ñu ki nga xam ne moom moo di suñu sang bu tedd bi waaleykum salaam wa rahmatulah Cheikh Ibrahima Taw ñu ngi ànd ak mbégte bu rëy dalal la si suñu plateau MCTV. waaleykum salaam soxna Sow Diatta ñu ngi lay ziar di ziar Seydou Góor Mbodj ah di rafetlu vraiment seen invitation yi macha allah ah, ñu fëtali noonu barkeelu rek si suñu sang bi tëdd bi. Fanzi salaamu minni ilayka maariwul an baari wati bi miskaaw damay wëlbati mboolam waye ni soodaan si zaahir ba ci baatin ba jar di seetaan suma xaatir dafa rootaani boori nder may way ki jaraway moo ñu tise ay leer may géwal gisi lislaam xamal ma ko doon tey ma way te kañ la yaa doon rabbaan sirub ngeneel yi nga làmboo si diine lislaam soppe baa la jox moo xëyoon ca xaddiim xubbul axtaabul kabir yaa di jant njolloor saxal nga fi ay leer teg fi mbooti doy waar maa ngi laa yalwaan yow mi doon tijaan mbay ma sambe ba tam xol ma silimaan fugóole naa tibal ma ndax ma jot ci bekkoor rafle naa wodu naa kon nga daa di sa woloo gën a gaaw xat mu faati may buur sa xéewal gën a baawaan ba mel ni aw niir sa arte gën a wér yaay xaliilu rahmaan boloo wax borom kun daa dene fa yakun macha ah, ñu ngi jiyaar tamit waa Medina Baye way bi ñoom ñoo ko woyoon ci Maulana Cheikh Ibrahim ñu gis waay bi mën na dellu si suñu sang bu tedd bi ndax ñoom ñëpp Cheikh moo leen tax a jóg macha allah ñu ngi leen koy ziare ñoom it waa na bàyyi aussi di ziar ñëpp di ziar suñu sang bu tedd bi asalaamaaleykum wa rahmatullah ah macha allah ñu ngi jaajëfal Cheikh Ibrahima Taw ci bàkk yu tedd yooyu nga xamante ni mi ngi koy bàkk suñu sang bu tedd bi. macha allah kon téléspectateur yi maa ngi leen ko doon wax euh, programme bi nga xamante ni waa daayiratul imaan ñu ngi koy ñu ngi koy doxal tey jii samedi le 27 janvier 2024. Euh, ñu ngi organiser benn seen pojam thème bi nag nekkoon euh, nan la missionnaire euh, war a comporté woo ci keppaaru ki nga xamante ni moom moo di Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh Imam al Mahdi al Muntazar kon ñu dem xooli benn extrait daal di ñëwaat ci plateau bi. maa bëgg la laaj volonté boobu ak détermination boobu nga am ci mission bi soxna Binta Sène loolu fan la jógee. waaw parce ñun dañu jàng si suñu sang bu tedd bi ci détermination volonté sang bi ku nekk xam na ni moom yaakaar naa booy wët pas-pas ba mu jeex rek ah boo eggee si moom da ngay noppaloo. waaye nag soxna Binta yow nag dafa mel ni xaal yi lim lay bari na. parce que nekk waaye 3 heures du matin nga war ko yónnee waaw parce que xam nga sang bi maanaam moom def ñu def ñu def ñu jagleel loolu ci boppam. Hmm. sang bi ma mosuma ko maanaam def yónnee dara. ci loo xam ne lu jëm ci mission sama diggante moom woo ma ne ma li nga ma defee li nga ko defee ni waroo ko defee noonu moom dafa comprendre xam ne maanaam taalibe yi moom rek la ñu yaakaar moom rek lañu yaakaar xam nga ku toog ba 4 heures du matin woote wala 3 heures du matin pourtant xam na ne yaa ngi nelaw waaye xam na ne toll na ci problème boo xam ne kenn la ci yaakaar moom kese amul leneen su ko defee lan lay def dafay obligé wax ki wooma su ma woowee it man ci saa si man duma xam heure ban heure moo jot moment boobu li ma war mooy ma jottalee ko sànq bi ni ma mayee man ma jottalee ko noonu. foofu dafa may indi gor yi ñu waxtaanee tuuti téléspectateurs yi suñu mbokk internet yi xam kan la ñuy ziyaara te bu ñu waxee Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh jëmm jooju lan nga ñu si mën a indil macha allah. ah macha allah soxna Sow Diatta ñuy remercier comme ni nga ko waxee rek Cheikh Ibrahima si wéy bu am solo bi wóy na ko ki nga xam ne moom nga wax ni nañ ko waxtaanee jëmm jooju nag waxtaanee ko nekkul lu mu ndax nekkul jëmm joo xam ne nit mun na kaa peeg waaw nit munu kaa peeg parce que lu mu toll moo tax dimension moo tax ki nga xam ne yonent bi Seydi Ahmed moo ko annoncé ba nga xam ne jullit ñëpp tey dañoo yàqamte ñu ñëw parce que toll nañ si jamono joo xam ne lu si ñuy wane ne jamono jii la waroon ñëw yëpp dafa feeñ kooku nekkul ku ndaw kooku tamit nekkul nit ku ordinaire mooy mën a toog fii di wax ne mooy diw wala mooy diw maanaam lu ñuy mën a def rek mooy as tuut li nga xam ne moom junj na ko si ay ay si boppam ñu mun kaa wax te ku ñuy wax mooy Seydi Mouhamed El Cheikh su ñu nee Seydi Mouhamed El Cheikh mooy imaam al Mahdi su ñu nee imaam al Mahdi rek ñu bëri dañuy yaakaar ne rek ne euh, comme am na ay milliers de personnes yoo xam ne woote nañ ko si zaman ñun dañoo sawar rek di wax imaam al Mahdi du loolu euh, da ko prouvé da ko prouvé lu tax mooy imaam al mahdi Seydi Ahmed bi nga xam ne mooy yonent bi bokk na si description yi mu waxoon ne noonu lay mel ne su ñëwee d'abord dina nekk koo xam ne soo ko delloowee turam day dellu si sama tur maanaam Mohamed lay tudd mm. maanaam teg si ne su fekkee da nga jël turu baayam day dellu si sama turu baay baayam Abdallah lay tudd nga gis ne loolu feeñ na si moom Seydou Mohamed El Cheikh lañu wax ginnaaw loolu tam yonent bi waxoon na tamit ne su ñëwee dina jàngale ay jàngale yoo xam ne ñu koy njëkk a weddi mooy ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam parce que jàngale yooyu nekkul jàngale yoo xam ne da ngay téere di ko gis ku xam sang bi ñu bëri ñu luñ koy weddee lu ñuy wax ah moom lu muy wax amul lu wax parce que dimension bu muy jàngalee moo tax te koo xam ne si réew mi fii la juddoo fii la yaroo benn ustaas du toog ne maa jàngal lu dul arxuraan mais lu dul loolu amul benn xam-xam boo xam ne kenn mun naa toog ne man maa ko jàngal nangam te chaque fois muy wax xam-xam yoo xam ne yow mu koy weer da nga koy weddi rek parce que amoo loo fay teg waaye amoo si loo mun a basé wu ba wax ne lii dama koy weddi parce que amul du si sariya du si xàq yi waaw kon kooku maanaam yonent bi feeñal feeñal na ko mm-hmm. ba pare dimension am tamit day nekk dimension boo xam ne day élevé de telle sorte que kenn mënu ko a peeg ba tax na sax Mawlana Cheikh ba mu waxee ne su ñëwee sama taalibe la fa lay lay nekk détracteur am yëpp dañoo ree ne loolu nan la mën a nekkee ki nga xam ne yonent bi moo ko annoncé nan lay ñëwee di nekk euh, maanaam nan lay ñëwee mën a nekk taalibe ki nga xam ne sax ñoom gëm nañ ne euh, nekkul si dara. macha allah Cheikh Gori foofu euh, dafa am sax si lu sama xel dem moom mooy comme li nga wax ne moo Mawlana Cheikh. Euh, moom moo annoncé woon ne imaam max di bu ñëwee sama taalibe lay doon mais dafa mel ni sax suñu mag ñu baax ñëpp annoncé woon nañu euh, ñëwu imaamal al mahdi waaw su ma juumul waaw mm. exactement soo soo demee si si Seydi Hadj Malick loolu moom wax na ko mm. euh, Cheikh Oumar wax na ko bàyyi ña sax junj na ko waaw junj na ko ne su dinaa bokk dina su ñëwee dina bokk si man dinaa bokk si ñu koy dimbali waaw moo tax am na ñoo xam ne sax euh, si si ay taalibe yaakaaroon nañ ne su ñëwee taalibe bàyyi lay doon waaw parce que loolu yëpp ku nekk tamit rek par rapport ak kilifa bi nu muy nu muy waxee. Hmm. noonu nga koy déggee mais gis nga comme ni nga ni nga wax. Hmm. junj yooyu di am yooyu yëpp day wane dimension nit ki. Hmm. ba tax na ku nekk da koo woote nag ma àddina soo demee Iran ñu bëri woote nañ ko suñu réew mi di Sénégal yeneen réew ku nekk woote woon na Mahdi mais Mahdi soo ko woote woo ba pare te fekk ne yow dund nga ba génn àdduna. si dëkk bi nga nekk kese dëkk bi nga nekk sax ñëpp xamuñu la. Mhm. mooy yaa problème parce que Mady su ñëwee àdduna lay diriger. adduna lay diriger nu mu koy diriger nag loolu day bokk si maanaam eh, kun fayakun yu ko yàlla di jox jaarale ko si sëriñam di Mawlana Cheikh pour loolu mun a am. moo tax kenn du nekk imaamal Mahdi dund ba génn àdduna te fekk ne injustice bu yonente waxoon ne dafa war a deñ maanaam diine l'islam nu mu tu tumuraankee nu mu war a deñee te du mu diine tey ku ko gis xam ne tumuranke na mm. soo gisee luy xew Palestine ak ñaata jullit moo am ñuy def noonu suñu mbokk jullit te kenn mënu leen dimbali parce que l'islam moo tumuranke te loolu imaam al moo ko war a régler waaw kon suñu waxee ne kon imaam mahdi ku ko woote woo nekkul ne da nga koy woote woo si bërëb rek mais da nga koy prouver mm. ñun na dañoo gëm ne Seydi Mouhamed El Cheikh moom mooy imaam al parce que li ma wax si nu muy jàngale wone na ko maanaam jikkoom wane na ko waaye en même temps am na loo xam ne tamit baatin la ñu ñëw tey topp ko yëpp mhm. ñu si ëpp jàpp nañ tarixa bu yàgg mais dañoo dégg ay jàngaleem xam ne lii lu bees la mu defal la ba pare si jàngaleem yooyu avant nga koy gis mu yar la maanaam moom dafa yor tarbiya boo xam ne lañ moom la wax tarbiya à distance tey am na taalibe yoo xam ne ñu ngi États-Unis ñii ñu ngi ah, euh, ñu ngi itali ñii ñu ngi France kenn tegagu ko bët waaye tey ñu toogee di la wax seen relation at mag ñi nga xam ne ñoo nekk si tarixa bi wala seen relation at Mawlana Cheikh da ngay wax lii sax mënul nekk macha allah te ko waral mooy tarbiya bi nga xam ne moom la yore. Mhm. muy nuurul kunuus bi nga xam ne koo jox. Mhm. allah ah Cheikh Gori li nga indi am na solo waaye rek euh, su ma dégg baax li nga wax si tënk euh, kii di Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh euh, yonent bi annoncé woon na ko suñu fàttalikoo tamit Ali ibn Abi Talib waxoon na ko ne woon na sama sët dina ñëw jiite àdduna moom mooy gindi dam damm yi moom moo fiy gindi réer moom moo fiy àtte dëgg. daane dina nuru yonent bi si ay jikko waaye du ko nuru du ko nuru si couleur couleur yaramam loolu dafay wane ne eh, imam Mahdi eh, warul mën a nekk nit ku weex buy nuru yonent bi sallallahu alayhi di Seydi Ahmad si ay jikko la koy nuroo sang bu tedd bi di Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh ku ko bañ danga kaa xamul waaye ku ñëw ba jaxasoo ak moom ba saafonte ak moom eh, da ngay da koy mujj a sopp ndax lan ndax jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam la làmboo mosoo ko dégg mu yëkkati kàddu bu ñaaw lu dul lu ko waaye def mu ne la baal naa la di jàngal nit ñi baax yar ruux yi ci bëgg leer parce que Medinatu Cheikhu Tidiane Chérif boo fi ñëwee da nga naan ñii ñëpp lan la ñuy def fii. Sow jota nga baal mhm. si li nga wax nii rek pour woon ne maanaam moom nu mu yoree nit ñi nu mu leen taxawee ne Seydou Mouhamed Ousseyn dafa nekk ku exceptionnel parce que tey bu nekk tey soo waxee fu su la waxee fu mu jaarat moom da ngay wax loolu nit na di nga xam ne nit ordinaire mënut loolu. parce que lu ko lu ko waral tamit mooy ñu ngi wax imaamal mahdi te imaamal mahdi ñun bañ koy gëm di ko topp boobu titre imam mahdi sax ñëwagul boobu jàngaleegul sax luy imam mahdi jàngaleegul sax luy mission imam mahdi mais dafa fekk ne moom Mawlana Cheikh si boppam moo ko joxal tarixa bi boppam mm-hmm. maanaam jël demul fenn di jël tarixa bi si kenn te loolu bokk na si description imaam imaamal mahdi parce que du am sëriñ boo xam ne moom mooy toog naan ko da jaar fii da da ngay jokk si kii jokk si kii ba mu àgg si Mawlana kuy sëriñam direct muy Mawlana Cheikh moo ko jox tarixa bi te boobu 14 ans la am te luy prouver ne euh, loolu si euh, nekk na mooy tey taalibeem yi nga xam ne jox na leen wér ñii mu yeesal leen yàlla may leen taw tawfeex dañuy toog si malaana wasiwa di gis yonent bi nu muy teewee saxaaba yi nu ñuy teewee waaye tam di gis Mawlana Cheikh nu muy nu muy teewee si wasiwa macha allah kon loolu mhm. su fekkoon lu mu yor nekkul lu authentique mhm. loolu di mun a nekk parce que tarixa tijaan ku ko gis mhm. nga xam ko xam li nga xam ne Mawlana Cheikh moo ko garantir ak boppam te moo koy téyel boppam. macha allah macha allah Medinatu Medinatu Cheikhu Tidiane Chérif daanaka boo fi ñëwee loolu nga fiy gis euh, sang bu tedd bi programme bu mu nekk lu mu riche riche riche bu heure julli jotee da ko fay dagg bu heure joxe farata jotee ci tarixa bi da koy dagg dem joxe ji jaamu yàlla boobu euh, julli rek moo fi am zikr rek moo fi am kon yal yàlla fayal ñu ko. ah macha allah euh, suñu mbokk yu tedd yi ñu ngi ñëw ak yéen. ci conférence bi nga xamante ni Mawlaya Seydi Mouhamed El Cheikh mi ngi koy def euh, fii ci Médinatu Cheikhu Tidiane Chérif thème bi mi ngi nekk la wazifa dans l'évolution spirituelle kon ñu dem ak yéen xool tamit euh, barkeelu tuuti ci waxtaan boobu nga xam ne sang bu tedd bi def na ko ci conférence bi macha allah. nga nekk ci nekk ci nekk ci waaye amuloo ci garanti xam nga lu tax amuloo ci garanti ndax wóoragu la ndax li ngay jàng yàlla nangu na ko. te yàlla bu nanguwul li ngay jàng boo ko doon jàng guddi ak bëccëg du changer dara ci sa digganteeg moom waaw sens bi wasifa am foofu mooy benn malaan ba ngay fekke ji bu la yàlla nangulul yow nangul na kenn ku nekk ca malaan ba te yàlla dafa wax Moussa alayhi salaam ca tuuri sinin ni ko sama yërmande dafa toll foo xam ni damay rus man yàlla fekk nit ci place mu bokk ak nit jotaay ñu bokkandoo li ñuy jàng ma nangul kenn ki ba noppi tëb keneen ki yàlla wax ko musaa ca tuuri Siniin ni ko sama yërmande dafay rus loolu ba tax na mu ni ko gis nga Moussa léeg dinaa fekk nit ci jotaay duma ko bëgg nangul waaye ki may nangul ki dend ak moom mooy tax ma laawaale ko ca yërmande ba mu bokk ci mi ngi noonu suñu mbokk yi tedd yi j'espère que ne dundaloon nañ leen événement bi nga xam ne deux jours yi amoon fii ci Médinatu Cheikhu Tidiane Chérif mu nekk ziara annuelle ren jii nekkoon deuxième édition euh, gis nañu programme yi première jours bi ginnaaw arrivé daayira yi euh, seen pëjam bi nga xam ne amoon na ci ngoon gi euh, deuxième jours bi aussi gis nañu Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh recevoir na daayira yi mbokku taalibe yi dénk ko seen bopp moom tamit mu ñaanal leen joxaal leen ay orientation Euh, bu ñu weesoo si loolu conférence bi nga xamante ni aussi sang bu tedd bi def na ko euh, mu nekk thème bu am solo boo xamante ni aussi képp ku ko déglu rek di nga si di si jëriñu euh, loolu moom moo nekkoon programme bu deux jours yi nga xam ne amaloon nañ leen ko fii ci Médinatu Cheikhu Tidiane Chérif kon di leen wax rek ngeen rester connecté à MCTV di leen jox aussi dég dig daje si yeneen programme incha allah asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu Seexu Tijaani makaanu leer bi dalal ak di teral mboolem yoneen ye awliyaa yi mawlaaya Seex ne mengoog ardul qudsi